comme ni ngeen ko gisee plage yu Besseyao moo ngi fees dell nit ñi nga xamante ne dañu ñëw ut si ngelaw gu sedd si jamono ji nga xam ne tàngaay bi mu ngi wullee ñaay si biir Ndakaaru te nag du ay activité ñoo fi manqué ñenn ñi ñoo ngi foo si biir ndox mi ñeneen ñii di jouer football walla sax taxaw jàkkaarloo géej gi di seetaan vague yi comme ni ko ñëpp di defee rek xam nga instant yi moom kër yi dafa tàng quoi te fii moom instant yi géej gi rek moo la si mën a arrangé quoi waa fii waaw am ay activité fi ngay toog jël sa màdd après nga naan sa café Touba dugg si géej gi féexlu sangu génn dàq stress bi tuuti si jamono ji nga xam ne vacances yi commencé nañ élèves yi itam ñoo ngi si profité bu baax waaw tàng na trop moom dëkk moom tàng na trop dama noonu pour féexlu jël air tuuti yaa ma gën a xam ak vacances yi tamit waaw il faut ñu feexal suñu bopp waaw kër yi lool waaw moom plage rek ñooy bomb ku demul plage plage nekk na itam ab bërëb bi nga xamante ne ñu bari dañ fay toog ngir rek dàkk stress bokk na ci ñooñu Fatim fa mi nga xamante ne dafa daal di def épreuve baccalauréat ba pare te nag muy xaar ay résultat wam dañoo ñëw pour déstressé fàtte résultat yi xaw a xalaat tuuti rekk libéré wu ñi nit yi feese dell ci plage yi day tax rek ñi di plagiste yi gis ci seen bopp bu baax. kabaan yi ci mel ni comme bu mag bi ñu toog ni dañ koy joxe ay 5000 francs pour group yi ñuy def ay sorti yu ndaw yi bon on le fait à 2000 bon toute la journée mën nga fi ñëw 8 heures mën nga fi jóge 19 heures et demi la ñuy wàcc quoi. bu weesoo loisir bi plage yu BCEAO nekk na itam ab bërëb bi nga xamante ne njaay mi dox na bu baax. dale ko ci c'est bon màdd ba ci mango ak li ni mel jaaykat yi. ñoo ngi si duufal seeni gafaga mu ngi dox bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax xale yaa ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw si géej gi. waaw parce que école dafay tëj xale yi il faut ñu ñëw plage mag ñi il faut ñu ñëw jël air waaw plage 2500 la commencé. si jamonoy été gi plage yu Ndakaaru yi ñoo ngay fees dell ay nit. mu nekk ab situation bu tax ñii di plage yi si ñoo ngay woo askan wi rekk ñu gën a moytu bu baax. te nag ñu ngi woo nguur gi itam mu gën a dooleel lii di kaaraange bi ci yooyu le bërëb rawatina plage yi nga xamante ne dañ fa daal di tere sangu bi